niki alxemes ji ñu weesu ca 7TV journaliste bi di may a Ndour fay nekk itam patron bu télévision 7TV invité bi mu amoon moo di Farba Ngom député bu APR gannaaw émission bi mu ci noppee dafa daal di yëkk ci fi nga xam ne moom moo di biroom ay simili ginnaaw loole ministre Abdoulaye saydu Sow bi ñu dénk wàllum urbanisme daal di ko woo téléphone ci jamono joo xam ne nag dafa bëggoon rek ngir ñu daal di waxtaane lii di farbangoom Ngom mi mu invité woon ak li nga xam ne moom moo nekkoon niveau débat bi waaye jamono jooje Maimouna Ndour Faye dafa xawoon ci bureau waral mu ne Abdoulaye Seydou Sow may ma dinaal rappeler bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos muy xëyee xabaar bi yéenekaay bi dollu li ñu ci ne jëlee ko ca ba mu invité Ismaïla Madior Fall moom Maïmouna Ndour Faye mu ngi doon jot ay menaces yoo xam ne loolee kon juraloon na ko njàqare gannaaw ba mu noppee nag li mu doon def ci bureau moom Maïmouna Ndour Faye ci la daal di woo kii di Abdoulaye Seydou Sow ci jamono joo xam ne moom Maïmouna Ndour Faye mu ngi nekkoon ci otoom ngir ñibbi ci këram nee nañu bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos xaritoo gi dox diggante Abdoulaye Seydou Sow ak kii di kii di Maimouna Ndour Faye ëpp na fukki at ak juróom ci jamono joo xam ne bi moom la Maimouna ak Abdoulaye Seydou Sow doon waxtaanee bi trois heures du matin jotee ba teg dix-huit minutes ci la Abdoulaye Seydou Sow mi Maimouna Ndour di waxal téléphone dégg Maimouna di yuuxu ci jamono jooje kii di Abdoulaye comprendre tul ndax xam na ne Maimouna Ndour fay bi mu doon waxtaanal moo nekk di yuuxu jamono ji bi mu naan Maimouna lan moo xew ci téléphone bi lan moo xew Maimouna nekk di yuuxu gannaaw gi nag la daal di coupé lii de téléphone moom Abdoulaye Seydou Sow ba tey bu ñu sukkandikoo ci Les Échos noonu la daal di def woo ay jege ñaaleem laataa xelam di dem ci kii di Modou Awa Ndiaye bi nekk 7TV ngir daal di ko yëgal ne Maimouna Ndour Faye laa doon waxal waaye damaa jékki-jékki dégg mu yuuxu donte nag ki ko agressé daal dina yóbbu li nga xam ne moom mooy bagage yi nekkoon ci saaku Maimouna Ndour Faye bàyyil ko fa ay pièces am waaye Maimouna Ndour Faye mënees nañu jàpp ne yoroon na kon ay takkaay yoo xam ne daanaka moo gën a bëri foofu xaalis bi nga xam ne moom la waa ji yóbbaale ci saagam te ñu koy xayma daanaka lu jege ñaari million ci suñu xaalis ñu sukkandikoo ba léegi ci yéenekaay bi di Les Échos saag bi Maimouna Ndour fay yoroon saagu joor la xaalis bu bari lay jar teg ci itam lii di takkaay yi mu takkoon daanaka xaalis bu bari lay jar donte nag moom Maimouna Ndour fay ci bi ñu koy agressé ñàkk na ci li nga xam ne moom moo di montre bi mu takkoon te muy montre or ak benn itam ci ay jaaro noppam waaye terewul li des ci takkaay yi mu yore woon yépp mu ngi ak moom te bu ñu koy xayma xaalis bu bari la